salaamaaleykum mbokk internet yi salaamaaleykum mbokki Sénégal maa ngi leen nuyu di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay yéen a ngi seetaan à travers wasaare làmb mu ngi noonu te ñu ngi toogal le président CRG bu Kaolack moom mi nga xam ne nag moo finaalu ah, ñu di ko félicité bu baax di ko jox wàccuwaayam ah, mu yore ñoom Papa Ngane dem naa fa ci groupement mu yore leen anam bu doy waar mais moom li ma jaaxal dinañ ci ñëw dafa amoon gëm-gëm bi ne drapeau chef de la drapeau mais président nuyu naa mais maa lay fay Aminta di nuyu mbokki téléspectateur Wassare TV yëpp di ñaanal ñëpp jàmm. président démb ngeen jël raw gàddu bi ndax dem ngeen final. waaw am na lu ci ñuul tuuti rek mooy waa Fat waa Thiès dañoo defoon recours recours bi jàppul ñu def appel mais jàpp naa ne. appel bi du jàpp man daal maa ngi préparé suma final dimanche incha allah. ah appel dafa am. appel dafa am parce que ñoom ja d' accord ne Radiakhé daan na Toubacouta te biñ defee recours recours bi ñoom dañ waa comité waa CRD bi dañ ko rejeté donc confirmer victoire Radiakhé léegi nag ñu ne d' accord uñ ci loolu def appel léegi appel baa ngi CNG ñoom laay xaar nii. mais am waa mais am naa yàqin ne qualifié naa final en tout cas man daal maa ngi préparé suma final. mais démb coow li bari na ci diggante Radiakhé ak ki nga xam ne moom mooy Toubacouta nee nañ Toubacouta moo njëkk a def trois appui nee nañ Radiakhé. waaw mais seetaan nga ko subitement peut-être jëlaat nga wóor na yàlla ba léegi xooluma suma téléphone. pour seetaat ndax euh, ki daan. man daal je m'en à ce que li comité bi wax. dans premier temps Radiakhé lañ jox victoire ñoom ñu contesté ñu dem def recours ñu étudier recours bi jàpp ne Radiakhé effectivement daan na confirmer premier victoire bi donc ñoom bu ñu defee appel ils son dans leur droit seen ci yoon seen yoon ne mais man jàpp naa ne appel boobu mënut a prospérer déedéet mënut a prospérer mënut a dem fenn. mais président lan mooy secret bi noo waajalee xale yi dañoo gis depuis le début bi nga leen sélectionné ba léegi dañoo amoon ambition ñoom dañuy dem final dañ koy jël. bi mooy seen première xale yi ay comme internet ak lu ñuy jëli la secret bi. secret d' abord mooy une bonne sélection une bonne présélection jàpp naa ne ñi ñu tànn bokk nañ ci mbër yi gën a xarañ ci wàllu lutte simple ci réew mi ma jox la benn exemple rek xam nga daaw maa di kii moo ñëwoon Adama Thior yàlla dogal ren mu am tolof tolof feebar ba ñu dégager quelques huit cent mille ñun waa CRG faj ko ak ndimbalu CNG quand même parce que participer nañ ci mais bi ma xamee ne du mën a ñëw dama ko woo ma ne ko xam nga ne doo mën a dem mu ne ma xam naa loolu DPR dal di jooy ma ne ko yow kan nga yaakaar ne tey buñ ko jëlee dina la ma a mu ne ma ci réew mii ma ne ko waaw mu ne ma maa di coor kooku de d'accord naa ne moom moom ndax daan na ma ñaari yoon te man ku ma daan ñaari yoon rek ndaanaan nga. maa ngeeg mooy suñ 66 kilo bi mu ne ma maa ngeeg numéro danaa ko léegi boo toogee 15 minutes nga woo ko ba ma ko ooyee mu ne ma waa waa euh, Thiès oo nañ ma mais comme euh, maa di ne woon na ma Adama ne woon na ma bu ma demul gars yi dañ la woo moo tax dema gantal waa Thiès léegi pare naa pour ñëw Kaolack xam nga kooku ndaanaan la ba dara internet kenn du ko natable ci 86 kilos yi ndiig maama ba muy ñëw 87 kilos la woon pour wane volonté am ma ne ko yaa ngi 87 kilos mu ne ma père ma ne ko ah, mu ne ma dinaa wàññi. no salaat <laughs> moo ci gënoon yomb da doon dañ ko doon orloo ñaari ñaari fan. pom rek pom rek ak ndox mu tàng ak limon xaw na de. ak bisaabu xonq mais wàññi nañ ko be à 3 jours mu ngi woon 76 kilos. keroog gis nga ba mu yéegee ci balance bi nekk 76 kilos dafa dafa dafa yuuxu ne trésorier ool président ne ko ne ko yegg si naa donc xam nga loolu ngëm-ngëm la waaw ngëm-ngëm boobu nag boole kook ñun suñu engagement mettre leen dans des bonnes conditions yooyu ñëw nga fa appartement meublé lañ leen jëlal ñuy lekk lu baax ñu téye leen correctement ensuite temps de préparation bi ñun ñooy la seule région yu def dix regroupement entraînement matin midi soir yore leen intégralement loolu aussi bokk na ci condition de performance yi mais loolu nag ah, bu amee c'est parce que dafa am ñu ci jàpp du CRG rek de ñun ay xalaat la ñuy am dégage xalaat yi planifier activités yi mais nag derrière yaa y a tout un monde derrière y a monde ñu ñëwaat ci nga xam ne mooy dañuy gis chaque jour comme ni ma la koy waxee su dul Thiès Fatick ni ngeen di duggee stade ñëpp bàyyi leen xel. waaw ren moom depuis départ depuis daaw xam nga organiser nañ Kaolack jëluñ dara benn médaille de bronze lañ am benn médaille de bronze muy Pape Ndiaye daaw ñu ñëw. nekk champion 66 kilos 76 kilos 100 kilos nekk vice champion 100 kilos euh, plus de 100 kilos toute catégorie ñu ne nag kon ku mën a yegg si foofu war nga mën a jël drapeau bi mbaa au nga finalu donc ñun suñu objectif ren moo doon au moins dem final léegi yegg si nañ final jël ko rek moo des waaw ci kattanu yàlla. yegg si ngeen final jël ko moo des lan moo des. à part jël ko lan moo des ak leneen ak leneen nan ngeen waajee final tey individuel moo am. nan individuel. ak ak xa mooy xale yu ndaw yi. waaw mais euh, individuel bi ni ñu waajalee équipe bi ci drapeau bi noonu la ñu waajalee individuel bi parce que même préparation bi la muy préparation physique muy préparation psychologique muy préparation mystique benn préparation bi la ngay def. pour drapeau chef de l'État bi donc par équipe moom ngay def également pour individuel donc jàpp naa ne nañ def ba yegg si final xale yu bëri tey nañ qualifié pour final suba incha allah. yenn xalaat champion di Sénégal bi nga xam ne boole nañ ko ci daaw ak ren open. la. open champion du Sénégal open bi. waaw ñu ngi ci ñu ngi xalaat xam nga open bi ñun ñaar lañ ci am muy Papongaan sox-sox ak Rajaxe rajaxe ñëpp jàppoon nañ démb mën mënta daan Toubacouta mais newoon moo ko ëpp doole bu ko bësee day dem te da koo bës mu dem Pape Ndiaye daan na daan na daan na suma kanam ibu Ndiaye daan na ko Diofior bu leen fàtte ne Pape cent kilos et plus la gën a ayal ne ñim ñi ñi ñi ñim yemal poids donc foofu amuñ problème ñun ñun ñun daal on est venu pour gagner man gëm ñu ñëwaat ci Toubacouta rek ñu jeexalee foofu keroog dama ñëw regroupement ma ne leen buuru Saalum ñu ne ma duñ ko nangu rajo xeeg Papa Ndiaye ñu ne duñ ko nangu parce que mënuñoo d'accord heure bu ñu dajeeg Toubacouta daan ko mu bëgg a nekk buuru Saalum. waaw Touba nag suma doom la et je l'aime bien vraiment suma doom la euh, ndax moom dafa am coloré ak waa Saalum. miin na waa Kutaal min na waa Kutaal ñoom Malick Samb ay nijaayam lañ moo tax ñun ñëpp jarbaat lañ ko jàppee comme doom yéene ko nag lu bëri ci làmb ji yéene ko lu bëri ci làmb ji moo tax foofu du ma ca mën a xuus waaye nag bu ko neexee aussi muy mu ne buuri Saloum la parce que Saloum saalum lay ah waa mais waa mais attention moom li muy def Saloum quand même bëri na de. bari na de ndaanaan ndaanaan la de déedéet yee bokkul Touba ndaanaan la Touba ndaanaan la moom kay nit ku nekk nan nga ko nangul rek la doon moom ndaanaan la bien que nag muy sox-sox muy rajaxe li ñuy def mën nañ ko lool ni tuubaa lañ mel waaw ñun dañoo bari ay mbër yoo xam ne ci ñun lañ bokk gis nga Sele ci ñun la bokk Touba ci ñun la bokk Serigne njaay numéro 2 Ndiaafat la juddoo fa la ma donc ñooñu ci ñun lañ bokk. même bu nekkul affaire drapeau chef de l' état fu ñuy bëre ci réew mi moo ñoom la ñuy faral Serigne Ndiaye buy bëre dakaar ay kaar ñooy jógee Ndiafat man mii sax danaa dem incha allah le 21 te bu may dem arène nationale moom mooy tax mais nag Dakar la juddoo fa la yaroo li ma neex ci moom mooy fu mu tudd tudd Ndiafat te Ndiafat ci Saalum la bokk kon ñun moom la ñuy tiitaroo c' est aussi simple que ça Touba aussi buñ ko ayee buuri Saalum loolu rek jar tax waa Saalum yëpp supporté ko ñu ngi lay jaajëfal tàggatoo jërëjëf jërëjëf tàggatoo di gërëm ñi jàpp te ba ñi nga xam ne dañoo gëm équipe bi di ci def seen alal ka ca jiitu mooy Pape Demba bi tey seen Senelec moom kenn du moom ci équipe bi docteur Macoumba juuf ci drapeau bii. président Saloum di Fallou Kébé DG Crous bu Sine Saloum di Ousseynou Diop président ligue de football bu Kaolack di Thierno Koso Diané Iw Bambara Moussa jama maire Sibassor bi euh, maire Diya bi Tamsir Gueye suñu jarbaat suñu doom Cheikh Ndiaye di responsable politique dëkk Ndofane dëkk Sika moom la njëkkal tëggal ren drapeau de préfinancement maire Mariama Sarr président du conseil départemental de Kaolack Bengeloun Bour Saloum Gédel mbooj peut-être bu ma ko doon lim fii laay fanaan mais ñooñu dañ cee jàpp parce que ku ci nekk yëkkati nga sa alal jox ñu amoon yaakaar nag ci équipe bi am na ñoo xam ne ñu ngi leen doon yaakaar dawuñ ci ginnaaw kenn nag dawuñ ci ginnaaw kenn parce que ñun même même ku ñu joxutoon dara aussi dañu ñëw drapeau chef de l' état mais ñooñu dañ cee jàpp ña cee jàppul te tey ko parce que am na ñoo xam ne ñoom dañ koo tey bañ cee jàpp du ma tudd tur mais ils vont se reconnaître dañ xam seen bopp bu fekkee ne suma personne moo leen déranger nañ téye seen xaalis bu dee suma personne. moo leen di déranger nañ téye seen xaalis mais man ku ma defal dinaa taxaw publiquement ne diw defal na ma ñoom buñ ma biñ ma joxee euh, euh, daaw jéeg seen xaalis taxaw naa gërëm leen sant leen daaw joxuñ ma dërëm pourtant ba may gërëm boole naa leen ci jàpp ne xat-xati jamono bi ak korité bi jege si moo tax defuñ dara mais ren à l'épreuve des faits par rapport ak man li ma dund xam naa ne dañoo bañ non amul jaa quelque chose man suma kii man euh, loolu la ma yàlla bindee li ma xalaat lay wax dañoo bañ mais ku bañ teel sa yëf en tout cas man du man may dund ma leen di solliciter c'est fini waaw équipe de la euh, sélection bi ku ko gëm def ci ku ko gëmul teel sa xaalis c'est aussi simple que ça merci. jërëjëf Khalil mu ngi noonu ñoo ngi doon am président CRG bu Kaolack aca dégg nga li nga xam ne souligné na ko waa Thiès dañoo def appel moom mu ngi toog di déglu. kan la ñuy joxaat li nga xam ne mooy verdict mi kon loolu ci kanam tuuti dinañ ci am lu ñu leer jërëjëf.